بحر سر وثنائي سمسور رشد واهتدائي جنة القلب بامتدائي لملاصي وصرائي alhamdulilah rabbil alamin maa ngi santaat yàlla beneen yoon di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mbooleem sant ma sante ko ki ma fekk ci lëndëm dugal ma ci leer ki xott sama xol def ci yàlla ki yàlla sédd muy séddale kooku di kan di Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahim Niass mi nga xam ni mooy xalifa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci tey jii nga xam ni guddi gii ñu taxaw ci buntu néegam guddi gii nga xam ne mun naa wax ne weer bi nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass su ci taxawoon ñu ne weeru yonent bi dëbal na nga gis boobaa boobaa nga gis nu ñuy taxawee di dugg néegam di dem di ñëw ngir kontaan ci ay doomam nga gis ni dañuy ñëw di bind ay bayt yoo xam ni dañ koy taggee yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy génne ay yéreem di alalam ñepp diko ci nax muy yëkëti yep def loolu yëpp lan la wane mbëggeel gu mbëgg yonent bi sallallahu alaihi wasallam ki nga xamné ne wax na ne su yonent bi doxé ma dox su taxawé ma taxaw kon koku ku am dégg-dégg dëgg ci yalla di nga xamné ne ñaar nekku fa ben rek mo fa nek ndax doomu adama buy dox bu nek xam nga ne takandeer dina la top waye mu ngi lay junjal bopam ne la mom suy dox tak ndeer ba koy top ndax ben ñaar amu fa yonente bi amu fa ben jëm rek mo fa am te koku mooy yonente bi sallallahu alaihi wasallam te pour am nit deg deg da nga xamne jëm jën tamit moy Cheikh Ibrahima Niass kon ñu ngi sant yalla bu baax ba yalla maye li tay ci suñ ñaar fukki at ñuy jógee li nga xamne moy nangaan di tudd yalla di ñëw fi and ak hal bo xam ci digg tàngooru Kaolack bi gis nga nuñ taxawé ni di nga xamne tang na lol waaye tàngoor boobu bànneex la nekk ci ñun waaye sedd la nekk ci ñun àjjana la nekk ci ñun te loolu yëpp li ko def mooy mahabba bi nga xam ne mbëggeel gi ñu am ci yenant bi ak mbëggeel gi ñu am ci Cheikh Ibrahima ak Cheikhu Tidiane moom lañ am gàmm gii ren ñu ngi wax gis nga bëri na ci ñoo xam ne ñëwuñ ci international bi muy Nigéria bëri na ci ñoo xam ne muy waa Niger bëri na ci waaye gis nga tuuti waa Soudan ak tuuti waa Mauritanie ñëw nañ am na ñuy jot a ñëw waaye loolu yëpp xam nañ ne lan la feebar bi moo ko waral am na ñoo xam ne delloo ji nañ leen ñun dañ ciy d'accord parce que sénégalais lañ te suñu réew lañ am te dañuy wax xubbul mi minal iman bëgg sa réew bokk na ci jaamu yàlla kon suñu réew moo ñu gënal lépp tamit ndax bëgguñ ci benn looraange looloo tax ñu jox leen ñoom ñëpp ñu toog di wax ne nit ñi gàmm gi nañ préparer ak barrières yi nga xam ne moom lañ wax na ngeen moytu ndax feebar bi lu am la bu ku ko gëmul ku ne da ngay nax sa bopp waaye nag ci biir loolu tey dama am gàmm goo xam ni gàmm goo xam ne ci man ngëneel la gàmm goo xam ne cawarte la ndax ku ma doon gis da nga may giseek te ma ànd ak Shababul Fayda bokk ak ñoom ak défilé bi waaye tey gis nga ma damaa sol sama garaam bu dellu ci cosaan li ñuy wax sëriñ ànd ak ñoom di dox waaye mënumaa ñàkk barkeelu ànd ak ñoom dox ñoom ci barkeelu bi lan moo waral loolu mooy tey dama nekk ci gàmm goo xam ne gàmm ma neex la ci gàmm yu ma mus a fekke ba ma juddoo ba léegi loolu mooy lan mooy bët bu set ku ma xam xam ni kaaskat la ndax daaw maag yéen ñoo fi taxaw ma taxaw fii ngeen laaj ma ngeen na ma kan mooy président ma ne leen suñu noon la parce que gisuñ lenn lu mu fi def loolu man maa ko wax te man maa dëggal la wax jooju ne man maa ko waxoon waaye suñ ma laajaatee ren loo defak président damay wax ne jërëjëf président dama naan ko merci beaucoup parce que man du ma nëbb sama wax du ma nëbb nu ma mel ndax dama leen di wax MC Niass toujours à lees la nekkee lu mu bëgg a wax daf koy wax lu mu bëgg a def daf koy def ndax ganaaru kenn nenu ma président ba ma ci gisee sama bopp mooy gis Kaolack gii mu ngi jam kanam te kenn jëmalewu ko kanam lu dul mbindeef gii mbindeefu yàlla gii taxaw nga xam ne suñu frère la ñëpp xam ko ñu koy wax Modou Ndiaye Rahma nga xam ne tey mun naa wax ne tey Kaolack gii soo waroon fii yëpp ci Kaolack nga laajte ko ci mbaaxam ak ci taxawaayam ba mu ñëwee ca weer bi ba mu ñëwee dafa ñëw oote ne képp koo xam ni ci organisation waxuma la Medina Baye rek waaye képp kuy gàmm fii ci biir Medina daf na leen préparer leen wax leen ma li ngeen soxla président yónni na ma ci yéen ma toppatoo leen yéen ñëpp kon nag la doon kaas président def na ko ren wax dëgg yàlla jaarale ko ci minne bi amul dara loo xam ne soxla nañ ko ba ci kii ambassadeur Serigne Ali Cissé Dem mu ngi nii toog ak ñun nii moom mooy ambassadeur fee nga xam ne mooy Oman moo nekk nii nekk suñ jarbaat nekk suñ sët nekk suñu doom mu ñëw nekk wëllëreem tamit kon Modou Ndiaye Rahma nu mu nekkee suñu doom nekk suñu grand frère nekk suñ mbokk taalibe fii ci Médina

amul lu président wax ne nañ leen defaral Medina Baye ndax ma gis tey ñu ree président maa ngi lay woon sama bëñ di ree naan la siiñ naa ko ree naa ko kontaan na ndax lii rek laa bëggoon bëgguñu woon dara aw ma lu ma joteeg yow du ma sonnoon du ma koo xam ne damay contre gouvernement waaye lu ma gis ci sama dëkk suñ ko defee mu baax ma wax su ma gisul lu baax danaa wax kon nag lii fii ak yaa ngi koy saxoog ñun ci suñu mbëggeel ndax nit soxlawuñ ko dara lu dul ngëneel rek muy defal doomu aadama yi kon nag fii ak ñu ngi koy gis ngay taxawal suñ Kaolack gii di ko jaarale ci kii wallaahi laasim ñu ngi kontaan te ñu ngi la koy dénk nag ñu ngi lay wax ne la Mbodj Ndiaye ma mii président xawma de ndax man ci réew mii laa bokk Kaolack laa bokk te révolutionnaire la révolutionnaire la boo xam ne ñëpp xam nañ ma ko dañ ma koy wax dañ naan ma sa kàddu dafa dëgër waaye maa ngi lay wax na la kii bàyyil ñu ko ci Kaolack ndax am nañ njëriñ ci ñun ci Kaolack suñ gisutoon njëriñ gii duñ ko jeter fleur mais suñ gisutoon njëriñam dañ koy wax na ko toppal fële waaye fii koo dox ci biir région Kaolack gii ñu ci Kaolack ko laaj na ko Rahma mu ne la mu ngi liggéeyal président bu baax te mu ngi askan bi kon ñu ngi lay remercier ci jëf yu baax yi nga jëf ak li nga rawatina Shababul Fayda gii nga xam ni ba ma juddoo ba léegi yore ko defar ko ndimbalu benn doomu aadama su ma see fekk suñu ndimbal moo ñu si fekk wax naa la ko keroog ma ne la am nañ budget boo xam ne ñun suñu budget day dem ba ci trente huit million danay dem ba ci quarante million te suñuy ñaat dërëm suñu ñetti dërëm moo ko def nga yëkkati yow tamit yëkkati na vingt millions ngi nii président moo leen ko dimbale ngeen préparer seen bopp kon loolu rëy na kon ku la defal loo koy wax man laa yashkuru naas laa yashkurullah ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla kon ñu ngi lay waxaat jërëjëf jërëjëf di la ñaanal yàlla di ñaanal yàlla ñëpp di ñaan tamit monsieur l'ambassadeur yàlla gën koo dëgëral gën koo booleeg président mu jëm ci kanam. alhamdulilah ñu gis ne changement deux fois da nga daan sol tenue ànd ak taalibe yi di défilé expliqué nga lu ko waral mais tamit beneen changement bi mooy que ni boo daan défilé ba mu yàgg dafa am sa kër taalibe boo doon jaar moom dafa feebar ça fait des années mu nekkoon handicapé mënutul dara ak boppam nga daan fa jaar ñaanal ko saafanteeg moom doog a continuer ren gisuñu nga jaar fa lu ko waral. waa ren euh, li tax jaaruma fa gis nga ñun ñëpp ñu woon ci réception bi te am na kilifa yu fi ñëw nitu nguur lañ te ak feebar bi ak ni mel am na lu bëri dañ koy moytu soo gisee takkuma masque maa ngi wax nii waaye préparé naa sama bopp ñu ngi amee suñu ay jumtukaay yoo xam sànq ba tey ñu ngi koy pomp di def tamit comme nuñ ko waxee soo gisee jaaruma fa munuma fay kooku tamit maa ngi ciy gërëm toujours kon nu ma koy waxee nee naa Marème fay fu ma mënti taxaw dama koy gërëm dama koy sant ndax dama am sama nit ku feebar ñaan ne na ma dimbalee pour mu ñëw fajal ma ko même pas une heure mu bàyyi itam yëpp jël ko en charge yóbbu ko la ko waroon moom def na ko waaye la waroon ñam jox nga xam ne ñoo a marché boobu ñuy docteur yi ñoom ñoo deful lu leen war waaye du ma ko ci musa mere dama koy gën a ñaanal yàlla parce que ndey joo xam ne la kuy jàppale Sénégal la man su ma gisee léegi-léegi ñu koy xalab wala léegi-léegi ñu koy xas moom wax dëgg yàlla dama naan jigéen ju mën góor la su fekkee ne jëkkëram mooy président tamit mun naa wax ne kenn musta mel ni moom moom Marème fay ci biir Sénégal gi moo tax te ñëpp bëri na buñ gis ni kooku rek la waaye bëri na ñu muy faj bëri na ñu muy dimbale kon suñ amee ku mel noonu nañ koy jàppale di ko ñaanal yàlla mu sax fi parce ñun lu ma leen wax rek ku am njëriñ lañ soxla kuy dimbale jaamu yàlla yi la ñuy soxla nit ku so amul njëriñ ci jaamu yàlla yi soxla wuñ la soxla wuñ laa gis kon Marème fay jërëjëf ngàcce ngaalaama ci sama malade boobu nu mu feebaree loolu rek la maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax. état de santé am jamono ji nan la toll par rapport ak daaw ndax daaw gisoon nañ ne euh, mënul woon jug sax toog wax ak nit ñi est-ce que am na amélioration wala jusqu'à présent même état bi la malade bi toll. waaw mu ngi ci état bu mu doon feebar mu doon topp ba mu ngi ci. waaye yàlla daal moo moom jaamam bi am na feebar yoo xam ni da ngay toog xaar yàlla rek yàlla mooy saafara mooy kii waaye gannaaw xale la boo xam ne day jàng alquran gam naa ne alquran jooju moo koy faj ndax mu ngi lekk mu ngi naan mu ngi tëdd mu ngi ak mbokkam ngi koy ñaanal yàlla fu mu nekk rek yàlla defal ko jaamu yaa rabbi waaw euh, li may wax rek xam nga ab xaj moom xaj rek lay doon xaj moom xaj rek lay doon mbaam mbaam rek lay doon ab mbaam soo ko toppee di ko tontu da ngay mujj a mel ni mbaam moomu ndax Macron mbaam la ndax rawatina xajam boobu nekk ci wetam muy soxnaam si gis nga nuñ nirooyee yenent bi taar la te moo taaral kii bi yenent bi moo tax jant bi leer naññ yenent bi moo tax weer bi leer naññ fii ñu taxaw ni leeraay gi yëpp leeraay yenent bi la kon nag suñ toogee gis ab xaj ab mbaam ab doomi araam joo xam ne tekkiwul dara jóge fee ñëw ne daf ñuy xasal yenant bi ñun duñu naqari dañ koy naqarli ci xol ndax dafa laal fonk goo xam ne suñu fonk la waaye maa ngi wax ne képp kuy jullit nga nekk ci kaw àddina doy nañu sëkk Macron nañ ko ñaan yàlla na dee ak képp ku ànd moom na dee te nañ ko wan ne ko ak kum mënti doon ak ñi ngi xas yenant bi sallallahu alayhi wa nañ leen wan na leen soxlaa leen bëgguñ luñ leen dara fii ñun yonent bi lu ñu mën a wan ci yonent bi suñ ko dessiné woon ci melo bu gën a ñaaw sax du tax ñu xàddi mukk bët bu set dañuy bëgg yonent bi ndax moom moo wax ne képp ku ma bëgg amul sikk sàkk na maag yow ñooy bokk àjjana ñun danañ dugg àjjana bokk koog yonent bi sallallahu alayhi wa waaye makru du musa gis gis àjjana ci àddina wala ci àllaaxira yàlla yàlla xalak ko yàlla yàlla rey ko loolu am pur wax moom di wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax tey

ba ñuy dugg Kaolack ba ni ñu duggee biir Kaolack ak ni ñuy gontoo di yegsi ci moom tey nga xam ne pas-pas ak xol moo ko def Serigne bay wax nga léegi ay wax yu rëy ci président Macky Sall ci natt boo ko ren ba gis ne lépp loo xam ne yéen a ko doon sàkku ci moom mi ngi tegu ci aw yoon waaye yow itam ñas maa ngi lay sant bu baax ndax kat mission yi nit ñi yor dafa sensible bu réussir rek mooy ne ku mel ni yow daf cee jàpp parce que bis bu ñu dajee waxtaan suñu waxtaan yëpp mu ëmb gàmm ak li aju ci gàmmu ak naka la ñuy def ba gàmmu rafet nga xàllal ñu war ñu wax ñu biñ ko jëfandikoo rek dañoo gis ne tey macha allah ñëpp kaar macha allah dañoo wane ne gàmm gi réussir na à 100 pour loolu sa loxo bi daf cee dugub bu baax ndax Médina fii mu toll tey ak li fi nekk ci ay gàllankoor sus ci gàmm ci mbooloo ak yëngatu nga xam ne jeunesse bi ñoo war a dimbalee loolu pour mu sotti. ñes def na lépp sa mbooloo mi kar macha allah wax naa la léegi ci bëccëg ma ne la daanaka bu may sayru rek seen sikkar laa déglu ca loolu lu wër la ci suba wax naa la ne la jëlal na ma une heure de temps pour ma génn pour déglu leen rek wala suivre leen car macha allah maa ngi lay ñaanal fii ñu taxaw tey nga xam ne mooy buntu néeg bàyyi yàlla dott ci sa kaw barkeem parce que nit ñi war nañ laa ñaanal ndax jeunesse bii nga jiite du yëfu caaxaan jeunesse dafa dafa cher ci am rew yalla dogal tay nga jité ko waye ma contane bu baax tay ci sa loxo ak sa ubbeeku gi nga am ci président Macky Sall ndax kat nit ku nekk kilifaam rek la am ku ko fonkal kilifaam rek fonk nga ca wan nga ñu ne fonkal nga ñu sun kilifa wan nga ñu ne lepp lo jappon ci mom ci safaan tek nga ci suuf fas jappalante ak mom dimbalante ak mom ngir acte yi nga xamne yalla dogal nañu poser ko ci

ci gàmm gi nga xamante ne nii ci la ñu ci la ñu nekk ren wax naa barki démb bu ma ne ndigal yi ñu jël ci xalifa bi mooy waral toujours ne nit lépp lu muy def na jël ndigal boo amee ndigal rek lépp loo dugg yàlla mën na cee def barki maa ngi lay sant bu baax di la ñaanal nga yàgg jiite mbooloo mi waaye mbooloo mi itam yàlla yàlla dimbale leen ba lépp liñ yéene pour def ak yow lépp liñ yéene ci pay bi yàlla may leen kattan guñ ko defee di ñaan nga ñaanal président Macky Sall yàlla dimbale ko yi nga wax ne gis nga ko ci ay changement bu démé nga gis changement yu ko gëna a ëpp fuuf doole fuf waye lépp nek njariñu askan wi nek njariñu talibé yi nek njariñu pee bi salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ma ma sha sha Allah Allah muhammad Ndiaye Rahma lii laa moom yaa ma gën a xam man xaw ma ci kaw lan jugee man dama jéggi saay rek gisleen ba pare foo tourné Dakar instant ngay gis. mais loolu ëpp na Dakar instant ca kaw ca kanam rek. Ah, gis naa seen caméra bi ni ma timmi xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xool bu baax damay pis pis di pàcc pàccal Dakar instant maa ngi leen dama leen di suivre euh, si page euh, seen page YouTube daal. waa Dakar instant moom boo xoolee ñoom seen tour rek day wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire. loo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni ma Dakar instant dafay prouver ne Dakar instant ci kanam la jëm Inshallah. allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant L'année leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. Dakar instant dafi nekkal instant. Dakar boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. Instagram. Twitter. moom Imo. Dakar instant. Dakar instant à tout instant.